c'est bon comme moom politique ou hmm? euh, question semaine semaine bee bu ñu génn dañu wax ne il faut que euh, il faut que Ousmane Sonko il faut que Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye génn ci emprise Ousmane Sonko hmm? ñu ñoom ñu jàpp ne euh, Ousmane Sonko mu ngi sur tous les fronts dafa noyé Bassirou Diomaye Faye yow da nga jàpp ne Ousmane Sonko dafa Bassirou dafa noyé Bassirou Diomaye Faye wala. gars yi xamuñu. gars yi gars yi gars yi Sénégal dañoo wax de ak ñoo bari wax gis nga nit dafa am loo xamante ni. ba si yow da ngaa jàpp ne ñoom waruñ kenn warul wax ko loolu kenn waru si wax dañu war noppi. mais ku mu neex am nga sa am nga sa xalaat da koy wax. ah d'accord réew mi noonu la war a tëddee ñun ñoo xeex ne kenn ku ci nekk boo amee sa xalaat waxal loolu lañ wax ñun. Mhm. léegi par rapport ak li Pape wax. gis nga Bassirou Diomaye. président Bassirou Diomaye. ak pré euh, ak ministre Ousmane Sonko ñoo ñaar ñooñu nit ñi ñu ngi jéem a ut nu leen féwalee mais loolu du am de buñ ko buñ ko mës xalaat parce que xam nga lu tax dafa am lu ko lal te du ay intérêt dafa am lu ko lal muy lu dëgg kii di Bassirou Diomaye fay am na ñu bari ñoo xam xamuñu ko ndax tekkam gis nga tekkam googu muy def na ci gars yi de faire attention Bassirou Diomaye fay jëf la gën a mën a wax ak ay wax du wax jëfam moo ëpp doole parce que xam naa jëfam moo ëpp doole muy toog ci feneen di wax kooku du wax Ousmane sonk nag dafa nekk benn enkoon ba xam moom bu ne dafa nekk koo xam enkoon la ah, ah. maanaam même bu ne woon tey jii géej gi am na suukar suba ñëpp daw ne Ousmane sonk nee na géej gi am na xorom am na xorom wala am na ah, def leen ci tigga lan mooy loolu. xam nga lan mooy loolu. parce que yàlla moo ko defal loolu. Adam Mbaye rek quoi loolu nga bëgg waaw yàlla moo ko may. d'accord. yàlla moo ko may loolu nan nangu rek. kon daal la nga jàpp ni ñii dañu bëgg a jaxase yàq diggante. non dañu bëgg a jaxase président jamaa Diomaye fay ak Ousmane Sonko. il faut ñu arrêter. te arrêté bi mooy. am na ñu siy wax sax dem ba naan ñaari président lañu am amuñu sax benn. mais waaye yow ñeen ñaari président fu mu am. kon waa APR li ñu waruñu ko wax quoi. APR nan bàyyi seen wax yi. fii laa wax ci réewum Sénégal. ñu génn ci ñu génn ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye. nanu génn ci ñoom. bon mais Bassirou Diomaye Faye nag mooy président président ku ko nekk dañuy wax ci yow. ma ne nanu génn ci ñoom. parce que ñoom bi ñu fi nekkee li ñu def mu ngi fi ne teg nanu bàyyi wax yi. ah dinañ wax nag parce que ñoom fi nekkee yéen noppi woo xam nga ñu noppi wuñu mais dañ ko booleeg ay jëf dañ ko booleeg ay jëf. ñun dañ ko booleeg ay jëf.